moom mooy la ñu jox kàddu gi itam nga xam na daa cër ci xale yi gisee dañuy kontaan lool ndax dañuy xam ne andil na teraanga kon sant nañ ko bu baax sant nag su ameen beneen baat bu gën a kawe bu sant ñu wax ko tey ji waaye jërëjëf moom jërëjëf rek la mën a doon xol sedd na ña la yàlla alxuraan fay guddal saw fan nga fekke lépp soxna Yacine Ndiaye mii nee na mënu koo tëdd tëdd ko ci boole nee na daa tànn ñeenti yaay daara ñu jigéen sargal leen boo xoolee góor bokku ci ndax dañuy jàmbaar Yacine Ndiaye ginnaaw yàlla lépp yow la daara ji yaag moom yéen ko doon dox ba mu taxaw caution la wax nee na jël caution jox la ne la demal jëli kër soxna Yaasin mii moo ko defal kon lu mën a xew moom rek nee na yàlla na ko yàlla musal ci cat musal leen ci saytaane digganteem ak moom fa mu bëgg mu àgg fa nee na lii lancement kese la nee na magam nga nee na ngeen a bokk bàyyi bàyyi moor ci boppam boole ko ak moom. ci zaahir ak ci baatin xam na moom moom xam na soxna Roqeetu si lay mujjee moom moom mention spéciale nee na su deful nii day am lu muy nuru nee na bis bii am ci àdduna faaw mu wax lii te dëgg la nee na yu baax yi faaw ñu koy wax boo waxul yu baax yi wax leneen rek kon ñi dem ci site internet yi ñuy publier lii lañ war a publier lii lañ war a publier soxna xeetu soxna roqee si day toog ba guddi day toog ba guddi taal otoom taal otoom def ko benn yoon def ko benn yoon def ci ay teranga teranga oto bi ñëw ba fii bi ñëw ba fii mu gaare yi wàcc mu gaare yëf yi wàcc mu ne bu kenn xam mu kenn yëg su ko neexoon su ko neexoon sama doom moo fi jànge sa doom moo fi jànge bu weer dee mu fay bu weer bi dee mu fay mu yem ak man foofu. mu yem ak moom foofu. waaye day indi ay ravitaillement. waaye day na ko kenn xam. nee na na kon soxna Roqe si kenn du yow. nee na yéen ñii sant na leen. man ñii laa am de. nee na ñii la am de. waaw léegi nag. léegi nag bu loolu jàllee. bu loolu jàllee. yaayu daara yi. yaayu daara yi. dañoo cotiser. dañoo cotiser. ñoom ñëpp ni ñu jël xaalis bu bari. jël xaalis bu bari. def ko ci bis bi. def ko ci bis bi. bis bi bu taxawee. bis bi bu taxawee. yaayu daara grâce à yaayu daara yi. grâce seen fay. amul seen fay. su ma jëlee seen tur yi ñëpp. nuyoo su jëlee seen tur yi ñëpp. jox ko teg ko ci loxo yi soxna Yacine Ndiaye. nee na teg ko ci loxo soxna Yacine Ndiaye. ak soxna Roqeetu si. ak soxna Roqeetu si. ak soxna Anta. kon kon lépp day mat. nee na lépp rek day mat. sant nañ leen ñëpp. sant nañ yéen ñëpp. buñ sant nañ la. ñëpp rek sant nañ la. waaye duñ sant yaayu daara bàyyi bàyyi nee na du ñuy sant yaay daara yi bàyyi parents d'élèves yi itam ndax ñoom ñooy fay ndax ñoom ñooy fay amuñoo moom benn amuñoo moom benn jafe-jafe bëgg nañ ma bëgg nañ ko jàpp nañ ma lool jàpp nañ ko lool kon nag yal na yàlla yombalal leen kon nag yal na yàlla yombalal leen def i poche i poche dara guddal seen fani fekkee lépp dañ fekkee lépp kon nag kaddu yaa ngi noonu kon nag kaddu yaa ngi noonu sëñ Cheikhouna Diouf sëñ tax ma tuddee ko nee na tax ma tuddee ko damaa première édition daa édition yëgalu ko te yëgalu yëgalu ko mu mu ñëwaat kii as la kat ku la am na lu muy topp ba tax am na lu muy ba tax muy ñëw tey dëkkandoo lañ Touba tey dëkkandoo lañ Touba moom la njëkk xalaat ci ku ma tuddee bis nee na moom la njëkk a xalaat ci ku ma tuddee bis ci bis bi ci bis bi kon moom sëñ Seexu naa alxuraan ji tax mu tuddee ko te wallaahi muy dëgg ci moom yàlla na la ya alxuraan fayal boppam kontaan na ci yow bu baax sëñ Bumbaan moom nee na baayam la baayam la bëgg na ko lool fonk na ko lool ak sëñ du Ndiaye ñoom ñaar ñii ñooy baayam ci daara ji am na koo xam ne moom sama yaay bopp la am na koo xam ne yaay boppam la dama waxaat waaw koy doo waxaat moom soxna soxna Yacine Fall. nee na soxna Yacine Fall. yónnee na forte délégation. yónnee na forte délégation. macha allah enveloppe bu duun. macha allah enveloppe bu duun. ma koy seedeel sëñ Gumbaan. nee na ma koy seedeel sëñ Gumbaan. ak Baye Modou. ak Baye kontaan nañ ci moom lool. kontaan na ci moom lool. boolewut ak daraa ki wax. nee na boolewut daraa ki wax. day jëf rek. day aw ma fayam. amul fayam. moom sama yaay la. nee na moom yaayama. sama baay moo jàpp sama loxo. baay moo jàpp ci loxoom. yóbbu ko ba ci moom. yóbbu ko ba ci moom. ne ko fii ci Ndakaaru. sa yaay néew fi moo fi sa yaay nee na ba mu naa dem ba génn réew mi. ba mu demee bëgg a génn réew mi jàngi. nee na moo toppatoo kayit yi. li ko fi téye. internat bi rek la. waaye konoon heure bi du ko fekk. nee na saa bu bëggee génn moom moo ciy taxaw. kon kooku lu mu ko deseel. kon mu la koy seetal sëñ Gumba nee na santal ko ko bu baax ah, nee na kàddu yi foofu lay mën a yem nee na yaayam itam soxna Aminta Si moo toog nii faaw mu gërëm ko lépp moom la nee na ñu ko gisee di ko bëgg wala di ko jàppale c'est grâce à elle nee na moo waajuram bu góor wi ginnaaw bi mu ko juree fa mu ko war a juree jàngal ko alxuraan mu mokkal ko ñëw ci kenn jàngal ko xam-xam mu ne la doyagul kaay dugal ko ci nasaraan bi ba mu toll fii mu toll amul fayam amul fayam yàlla na gudd fan fekke lépp suñ Moustapha mii nee na nga xam ne mooy seen mag sant na ko de nee na saa yu bis bi ñëwee boo ko xoolee xam na daa boole bis bi ci boppam daa boole boppam ci bis bi day baagante di organiser bëgg lépp baax te moom moo nekk conférencier bi te moo koy mas a nekk incha allah ba noppi waxu ci te du ko déranger amul fayam di ko ñaanal yàlla guddal fanam ak monsieur délégué de quartier Abdoulaye Seck nee na ku mu fàttale ngeen jéggal ko xel ay fattu amul fayam baayam la tette na ko boole na ko koñ bi yëpp lépp mënu koo wax nee na mi ngi ñaan yàlla dimbale ko moom ci ay soo gisee muy wax lii nag soo la ñuy liggéeyal faaw mu xam ne yéen la liggéeyal ko jàppale yéen la ñuy liggéeyal kon sant naa ko bu baax kon sant nañ la soxna Mbasso ànd naag forte délégation ku ci mel ne sëñ Habib ku ci mel ne sëñ Habib sonn lool sonn lool dañ daan soxna nday neen da koy bàyyi ak yàlla d'élèves yi ñoo ko bëggal seen bopp. nee na parents d'élèves yi ñoo ko bëggal seen bopp. ñoo ko sargalal seen bopp. ñoo ko sargalal seen bopp. ñoo ko jàpp jàpp goo xam ne. ñoo ko jàpp jàpp goo xam ne. lott na ak sant ko lott na ci sant ko. kon maa ngi sant ñëpp sëñ Fallou sama. nee na mi ngi sant ñëpp di sant sëñ Fallou rakkam. kooku kooku. maa ngi moom rek. maa ngi moom rek. fu ne fa fu mu ne fa lay ne. musul xaddi. musul xaddi. ànd naag man. ànd naag moom. épaulé na ma. épaulé na ko. di ma naafilal fii alxuraan. di ko naafilal fii alxuraan. ndax man ku ne xam ne damaa xaw a dox. nee ku ne xam ne daa bëri yitte. xaw a bëri cimbi càmbar. xaw a bëri ay yëf. waaye nag sant rek. waaye sant rek. bi loolu jàllee. bi loolu jàllee. ñu ngi sant suñu xaadim Guèye. ñu ngi sant suñu xaadim Guèye. miy def alxuraan ci xelu xale yi. miy def alxuraan ci xalu xelu yi. ku am solo mii. nee na ku dégg njàng xam ne suñu xaarim jàmbaar la suñu xaarim jàmbaar la. ba mu fi ñëwee yàggul de. nee na ba mu fi ñëwee yàggul de. waaye def na fi preuve. waaye def na fi preuve. te ku am ku am ku am ku am daraja la. nee na ku am daraja la. ndax ndax. soxna ami mii. soxna ami mii. moom la yàlla dogal mu mokkalal ko. moom la yàlla dogal mu mokkalal ko. ba noppi yëpp jëlee njàng mi foo xam ne. ba noppi jëlee njàng mi foo xam ne. mën naa jox exemple ci 10. mën na joxe exemple ci 10 ba ci 100 kon moom kenn amul fayam kon moom kenn amul fayam kon ñi ngi sant ñëpp nee na ñu ngi sant ñëpp ak koo xam ne moom ak koo xam ne moom suñu mag la seen mag la ndax sëñ bi moo ñu boole ak moom ndax sëñ bi moo leen boole moom muy suñu lépp muy seen lépp lépp lu ñuy def lépp lu ñuy def te gisuma ko ci te gisuñu ko ci damay xam ne des na day xam ne des na muy si sëñ jiili Abdul Xaadir Mbay nee na du tàyyi mukk ci njabootu sëñ bi ci njabootu sëñ bi ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy ñaanal saadatu gudd may ko gudd fan. yàlla may ko gudd fan. mu fekkee lépp bu fekkee lépp. ak ñi yor kàddu yi. ak ñu yor kàddu yi. sëñ Mansour Lo. sëñ Mansour Lo ak mbokkam mi mu àndal. ak mbokkam mi mu àndal. Euh, sëñ Mouride Mbaw. sëñ Mouride Mbaw. moom daal xanaa may tudd tur rek. moom daal muy tudd tur rek. Euh, ak mboolem ñu teew fi sëñ Ndiass ñu teew fi sëñ Ndiass Ndiaye ñoom ak. Pape Kese Pape Babacar Mee ak Babacar Mee. kee ñuy gis mu sollu zone lii. gis mu sollu zone lii. mu xeebu lool nii. mu xeebu lool nii. ci ay bët. ci ay bët. démb ay keesu ginaar la ma indi. nee moom mii keesu ginaar la fi ba noppi jël ab taawam. nee na jël ab taawam. tuddee ma ko. tuddee ko ko. am naa turandoo de. nee na am na turandoo de. kooku desewul dara jëmm jee ma tuddee taawam. nee na jëmm jee moo ko njëkkee tuddee taawam. te xoolal ba ma koy wax. nee na ba mu koy wax. damaa def cours université bay génn rek nee na daa def cours université bay génn rek mu woo ma nee na mu woo ko na ma tudd nañ ba noppi nee na tudd nañ ba noppi ma ne ko nag ma jéggal damaa amoon cours mu ne ko nag ma jéggal dama amoon cours mu ne ma yow laa ko tuddee mu ne ko yow laa ko tuddee ku baax a ngi nii andaysaan ku baax a ngi nii tuddee nit doom bett ko ñëw fa tuddee nit doom bett ko ñëw fa amul dara lu la jox amul dara lu la jox mu xew xewle mu xewle nga indi keesu ginaar nga indi keesu ginaar yàlla na gudd fan yàlla na gudd fan sama turandoo bi dina ko seet si nee na bi dina ko seet si euh, ak lutteur bi champion bi ak lutteur bi sampion bi Dramane Dramane moom it macha allah mi ngi am ndam nee na macha allah muy am ndam mbëri nag ñaare mbëri nag ñaare bu ñu ñëwee nga leen di ñaanal nee na bu ñëwee nga leen di ñaanal léegi léeg mu neexee léeg-léeg mu neexee waaye bu leen daanee ñu bàyyi la de ah, <laughs> moom na yàlla mi may dimbali nee na yàlla mi ngi koy suturaal ñaari combat la ma ñaanalagul ñaari combat la ko ñaanalagul ma toog sama néeg yow yàlla nee ñaan ci alxuraan yow yàlla alxuraan ji muy def ci dënn xale yi alxuraan ji muy ci dënn xale yi barkeb alxuraan barkeb alxuraan waaye mayal ma ko ndam waay mayal ko ko ndam waay am na ñaari ndam am na ñaari ndam ndam yu gaaw set wecc nag ndam yu gaaw yu set wecc nag <laughs> ay jaaxaar ay ka appui du ay carte appui du ay kon affaire organe kon lépp kon lépp alxuraan la lépp alxuraan la yal na yàlla yàlla gudd fanam maa sant waa Dakar di foncé nee na mi ngi sant waa Dakar di foncé di foncé jiital ci suñu Pape Kassé jiital ci suñu Pape Kassé ak mboolem ñu àndal ak mboolem ñu àndal ak suñu Abdoulaye sama nijaay ak suñu Abdoulaye nijaayam wax ji day nuru lu bari waaye bariwul. waaye wax ji day nuru lu bari waaye bariwul de. ndax ku ma tuddul. nee na ku ma tuddul. boo génnee mën ngaa xaw a dëngal dox. boo génnee mën ngaa xaw a dëngal dox. ne ma sëñ bi daal yëgu ma. ne la sëñ bi daal yëgu ma. maa ngi xool ni sax di xoolaale ñi ma war a. nee na mi ngi xool ñi ma war a sant rek ndeysaan. waaye xel mooy fattu. waaye xel mooy fattu. sant naa ñëpp. sant na ñëpp. daa mu des mu sabax. suñu la tubarkal la wuy ma boo ko bëggee toppoo nii nag fii la ñu ndogoo. léegi kàddu yi dañuy jox sëñ Seexuna mi waaw jërëjëf mbokk taalibe yi mbokki bokk bopp yi mbokki islaam nuyu na leen ci nuyub islaam bin bokk di ñaan suñ boroom defal na tawfiix ak su taw su àdduna ak àllaaxira di wax ne waxtu yi dafa xat lool te ahlul bayaan dana wax ne tuudixul waadix yujidul ashkaal aw mashaakil leeral lu leer day indi ay lënt lënt taxoon na ñaari nit àndoon nañ ci yoon muy ñaari gumba ñu dox ba ci yàgg ñu for ak mbiib kenn ki daldi wal daldi gis kenn ki ne ah man de gis naa kenn ki ne ko aal ma manit ma wal ba mu ko aalee mu wal muy moo daldi gis ki ci des ki njëkkoon wal ne ko dafa mel ni saa bëtub càmmoñ daal di see leer aal walaat daa mel ni ba mu ko aalee mu wal daa mujj dellu ca lam nekkaatoon loolu lañ ci bañ waaye kaddu gi ñu yëkkati ñu ngi ko yëkkati kàddu sëriñ naa Diouf mii nit nag nga xamle ko fan ka war a xamee ak ci ña ka war a xam daa jaadu sëriñ Cheikhouna Diouf doomi sëriñ na Diouf Lambaye la waa waajuram may gane àdduna 1904 kon kii doomi mag la ginnaaw ba sëriñ Tuubaa ñibbisi ci géej gi 1902 moom sëriñ Cheikhouna Diouf mii it couleur gi ma wax sa diggante yow ak moom du fi xaj waaye alxuraan daa wax ne ñett yi wala borom xam ne dana wax ñett yi ñëpp ci bokk yam muy alxuraan ak kaaba gi ak diine islaam lu ci waaye am yaa ko jox sa bopp waaye ku ci xat yaa ci xatal sa bopp loolu taxoon mu wax ne sawaa aw sawaa un fiihi wala sawaa an alxaakifu fiihi wal kaaba ga ñu nekk màkka ak ñu dem ñoo ci bokk ba àtte waaye nag képp ku jóg ngir yàq fa dara yàlla leen mbugalal boppam alxuraan yi ñi ko jàppal seen bopp ba tuddee siñ seex naa mi jox ko bis bii dakaay yow da ngeen ànd ku ngeen war a àndal da la la daloon waaye daleen leen dafa am benn waay boo xam ne dafa am sayaaratul xidma aw sayaaratul ujura mooy taxi moroom romb benn waay bu sol ay yére tirim mu ne ko yóbbu ma ma dem sama kër ba mu yéegee ñu dem ba si yàgg mu ne ko sëñ bi paas mu téye boppam rek. mu ne ko sëñ bi paas mu téye boppam ba mu demee ba jubbaa dëkk ba fa mu jëm gone yi dëkk ba génn naan ko bàyyi muudu dof ñëw na bàyyi muudu dof ñëw na mu ne ko sëñ bi paas mu ne ko leen la wax xanaa dala doy xanaa déggoo ko kon kii jox ngeen ko lu mu yeyoo yéen ñi nga xam ne yéen jàngal gone yi alxuraan sëriñ Tuubaa dafa bind ci Masaaliku Jinaan wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam la képp ko dalal nit baa siin mimaro suñ boroom jéggal na la yow mi ko jàngal jéggal ndeyam jéggal baayam kon alhamdulilahi rabbil alamina loolu tax yonent waxoon na ne man qaraa xarafan min kitaabillahi fa lahu bi xasana wal xasanatu bi xasari amthaliha laa aqulu alif laa miim alifun arfun laamun arfun miimun arfun loolu jàngeen lool kon sëriñ Seexuna mi sant na mu baax gërëm na mu baax rafetlu na jotaay bi mu ngi ñaan ci barkeb sëriñ Aliou Diouf Lambaye mi maamam te sëriñ Aliou Diouf Lambaye it umpalewu leen ko xam ngeen ko bu baax béréb bi du fu ñuy waxtaanee waaye mën nañ kaa waxtaanee ndax mbokkam mi mu àndaloon ñëw fi muy sëriñ se muy sëriñ moom sëriñ Mamoun Diouf Lambaye bind na kaamil jox ko sëriñ Abdou Lahad kaamil bi set wi ci lool Cheikh Abdou Lahad ba mu ko xool lam nga wax mooy rafet na lool waaye sa maam yi ba mu ñëw sëriñ Tuubaa lam lam lakka may mooy ak taalibe la muy tegtal mooy suñ Tuubaa moo mën a defar danaan fekk kuy takk ab caq nekk ci àll di naan sàngara di def lu ko neex tey mu nekk xaafisal Qur'an sëriñ Seex naa mi xam ne foo gisee gis nga ab loxoom ci al gis nga ab loxoom alquran jëmam bi alxuraan kon liggéey sëriñ Tuubaa la sëriñ bi ñu ngi ñaan di wàcc suñu kaddu leen fi wax yàlla na suñu borom jéggal bu dëngee bu baax yàlla na ko bokk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi sant borom bi tabaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di wax rekk ne bu doonutoon xëy na suñu kilifa gi di sëriñ Mouhamadou Sy kon duñ ci jël kàddu ndax mi ngi guddi te wax dëgg yàlla kàddu yi fi jote jaar rafet na lool comme ni ko cheikh bi waxee booy wut loo ciy teg boo yeexee mën ngaa lëndëmal wal ayaazu billah kon ñu ngi ñaan borom bi li ñu fi wax mu gàtt ak mu bari rek yàlla borom bi nangu ko defal ñu ko suñuy misaanul xasanaat ñu ñëpp te kàddu yi weesuwul ñaar mooy sant gannaaw bu ñu santee suñu borom ci fekke gi nga xam ne fekkewaat nañ ko bis bi te am na ñoo xam ne daaw ci heure bi ñu ngi fi woon te nekkuñu fi ñooña dem du seen yaaxus du seen càggante moo tax ñu dem ñi fi des it noonu kon yàlla moo def ak nammeelam rek kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla nammaat ñu fekkewaat ko ay yu bare bare bare bare di wax rek lii lépp bu ngeen ko gisee tey gannaaw yàlla suñuy kilifa gi di sëriñ Mouhamadou si moom la euh, ñu tàmbalee ko ci ñun ñii nga xam ne tey ñu lay wax ni ñooy taawu kër gi loolu euh, moom macha allah mook suñu way jur ñoo bokk ñaari way jur yépp ñoo bokk ndey bokk baay waaye itam walbatiku indi ñu fii ci ndakaaru maanaam di ñu teete di ñu teete tey ci alquran te teete bi yépp nag ci alquran la ba tey ñu egg fi ñu egg di wax alhamdulillah di ko ñaanal borom bi tabaraka wa taala na yàlla gën koo sàmm yal na ko yàlla gën a wéral yal na ko yàlla bàyyi ci kanamu njaboot gi ba nga xam ne nii njëriñu njaboot gi dana ci fekk lu bare bare bare bare bare bare parce que dafa liggéey dafa liggéey te ku liggéey it war ngaa jariñu fii ah ëllëg itam nga jariñu incha allah ñaari njariñ yëpp yal na ko ci yàlla yal na ko yàlla defal eh, eh, yaakaar naa eh, sama fanweeri at fi mu toll nii mi ngi bëgg a mat ci ndakaaru yaakaar naa mat na euh, may wax rek ne sëñ moodu njaay mii de li ñuy wax naan lu yàgg dëgg la ba ma dalee dem këram di ànd ak sëñ moodu mu di ma fa yóbbu ma di ko nuyu ji ak léegi de fanweeri at yi mat na kon nag seen ànd bi yàlla na ko yàlla saxal waaye yàlla na nekk ànd boo xam ne fii ba àjjana firdaws yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ak mboolem koo xam ne moo nekk ci tànt bi ndax ñëpp alxuraan moo leen fi tax a ñëw euh, beneen bi mooy yéen samay rakk ngeen gën a góorlu ndax lii kat du lu yomb euh, bu la yàlla tànnalee maanaam ay way jur yu baax ba pare ñu teg la ci yoon wi nga xam ne moom la lislaam santaane nga tegu ci su boobaa santal yàlla xam ne teraanga yi yàlla defal doomu aadama boole na la ci te teraanga yi toujours damay wax ne yàlla bu la defee nga nekk doomu aadama santal sa borom ndax bu ko neexoon mu def la ngay mbaam walla fas wala xar ah, ila axiri yi ndax ñooñu kat binduñ seen bopp ñoo bokk ñi ñu bind kon yàlla la soob mu def ñi ñun ñu nekk doomu aadama mu teral ñu waaw ndax nekk doomu aadama teraanga la wëlbati ko waat te ci beneen teraanga mooy ñu nekk ay jullit bu neexoon yàlla mu jafe ñu nekk ay doomu aadama nag nekk ay yéefar ndax yéefar yi maanaam tey jii ñoom ñoo def seen bopp yéefar lan moo tax ñu nekkuñu ay yéefar kon suñu borom moo ñu teral teraanga boobu yàlla na sax mu des beneen teraanga boo xam ne nag ñoo koy liggéeyal suñu bopp te mooy lan mooy ñu jaamu yàlla ah bu ëllëgee ñu dugg àjjanay si teraanga bi di sa ah ba abadan te loolu weesuwul lu mel nii mooy jotaay bii soxna si maa ngi dégg yaa ngi wax ne incha allah déwén fas nañoo yéene def lu ëpp li ñuy def nii gis nga damay wax ne alxuraan képp koo xam ne nii am nga yéene di ci def incha allah di jéem bu soobee yàlla da koy gën di man rek damay joxe ci benn exemple. ولم يكن في عبد بلا ملام بجاي صلي عليه بالسلام ولم يكن في عبد بلا ملام بهرمة المختار حبلي علما وحملا وأدبا وكلما زدني كل لعسة وطرفا من بار نورك المفادي قرفا دعوت عليه ما القيوب براجية منه التلازم الكسوف الناجيه نبس ما قد كان عندي بمام لدي راجيا سلالا سبمام يا رب علمني علوما نافعة حني وحن اهدي سقاء دافعا هل النبي صل وسلم يا عليم بآلك وليعب خير الهلوم ليهب من القلوم يا وخاب يا من له إياب والصواب ما قاب عن خير سوي الكمال بالعلم والأدب والأهمال أجب وسلم بالسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا حديث Tuubaa Yaasin waaw dañu ko indi laa dama ko gis dañu ko ñu indiwaat ko fat bi mu ànd ak soxna Yaasin da ko bëgg gis sëñ Moodu léegi li ma ci doon li mooy suy blaat sagalati na sagalati nga nu ndax ñun ñi bokk ci kër gi di ay jàngkat di ay waxkat di dem fu ne ci àdduna nun yéene sunub sag xamul tax sa maam bi seen maam jógee ci sëñ tubaa bokk na ci ñu ko njëkk seeti ji ne ko kookee nga jógee di ku jógee ci moom ku ko laal baax te kum laal ku la laal ak moom moo waral ànd ji tey ba léegi nag lu jiitu sax yoonu murit ci alxuraan ak jàngale lañ leen ci lañ leen xamul muy lii nga nekk loolu nag daa leer daa daa daa daa jaadu balaa ñu tàqali ko ñu leeral ko ñu nga téel ko ñu leeral ko ñu xam ko ñu leeral wax wax ne siblaat jàngul at mokkal ko rek sos daara rek bëggum njàngale deret la ci moom deret la doon ci moom ndax am na kenn ci am yoo xam ne si Muxtaar Mareema moo doon naafila jumaay Touba moo doon sama sëriñu baay ñaar fukki at naafilal na ko sëñ Fallou ci jumaay Touba ba sëñ Fallou jël doom soxna Maawa muy maami sëñ Moussa mi toog jox ko ko mu am ci soxna soxna su soxna si muy yaayu si Moustapha mi kon an jooju ndono la ci yéen daara yi bari na baax na lool waaye daara jii di bokkul ak daara yu bari fii ku fi jàngee alxuraan di nga ko mokkal te dina rafet te dina barkeel ndax ndono la ndono la léegi mécanicien yi bari nañ ci dëkk bi mais léeg-léeg nga dégg ñu ne kii de li xam ci oto benn mécanicien xamu ko lim ci mënit ki ko loolu mooy yàlla kon kon alxuraan jii boo gisee amul jot toog di ko jàngale sax ay jàngalekat di jàngi université ndono la day day may suñu borom bu leen ko suñu borom may fi ne ñi jaar ci ñoom sax maanaam ñu ñu ñu kawee lañ ci àddina fi ne sëñ Abdou Karim mu sëñ makaarami axlaax maami siblaat moo ko jàng sëñ Cheikh Oumy mu sëñ Fallou maami siblaat moo ko jàng alxuraan fi ne fan yi rek demoon naa mu ci tool ya Cheikh Abdou Karim tabax na fan yi kër goo xam ne da ko wax tabax ci àll daa wax ne fii laa doon jàngee alxuraan waaye ni ma ko bàyyi woon noonu noonu noonu ni ma ko bàyyi woon noonu rek la mel ba léegi dara soppeeku ci te man li ma am ci àdduna lépp fii laa ko amee sëñ Mata sëñ Mata Xadisi kon yàlla na ma def ci ma def ci kër sëñ Mata Xadisi gu mag goo xam ne mu nekk këru dalluwaay kër ga tey bu ngeen demee kër gu mag la defar bu rafet lañ ko defar kon comme pale rek kon loolu ndono la lu suñ borom dogal ci coobareem lu may leen ko ñoom ci waan ci waa ci yéen gi te niñ bokkee si sëñ si dilaaj maa ngi si mooy ma waxtaan penn si mooy waajur sëñ Mor Xalis ak sëñ Malick Bassine maam Maxtar Pend si moomu ak sëñ Ousmane si bi jur si diwaaj Malick si ñoo bokk bàyyi maam dem buuna mooy seen bàyyi kon ñoom seen lépp alxuraan la ak diine ak lu baax moo waral lii tey am sëñ Modou mii nit ku baax lii na ci yéen moo ko def ci yéen ak ak sunu yaay maa ami simé lépp ñooma sëñ Modou dax nekkoon naa ci kër gi ku sonn ci njaboot gi la ngir ñu baax barki sëñ Touba. bu geesoo gis ku nekk ci leneen lu dul ak mbaax sax day aalu ba wax la loo xam ne day mel ni juru la te bëgg nu lu baax rek moo tax mu waxee noonu man maa ngoon këram kon moo tax lii nekk ci yéen kon ñoo ngi ñaan suñu borom guddal aw fanam te wéral ko ci dara ji suñ tubaa suñ muud suñ tubaa rek ko ñor ci suñ tubaa rek lay xëy ci lay gont lu baax rek ko ñor doom yëpp mokkal alxuraan gone yëpp mokkal alxuraan te moo leen jàngal ci loxol boom suñ muudu amul doom bi ñu naan dañ koo joxe daara sàngam ñoom ñëpp moo leen jàngal ñu mokkal kon yàlla nga gudd fan ci dara gi te sëñ Modou mii lu mu ñaan yàlla def ko man loolu xam naa ci dara sëñ Modou mii lépp lu nit bëgg ñaan ko ko ña ñaan ko mu ñaanal la ko yàlla def ko loolu sëñ Tuubaa defal na ko ko waaw ku am nga ngërëmul ay waajuram lan waaye lu mu ñaan te ñaanantuwu ko yàlla def ko man xam naa ci dara ndax amoon naa ay tolluwaay ci wàllu soxna bi ma ko bëggee dane ma di nga am ko rafet di nga am ko baax di nga am koo déggal te loolu te noonu laa ko amee te ma ko waxee ci côté géej côté géej laa daje ak moom wax ma ma ne ko sëñ bi ñi ma bëgg ci ay jigéen bari naan waaye xam ma fu ku may takk mu ne ma dinga am ci fan yi ku baax ku jong ma ku la déggal te noonu laa ko amee ca fan yooyu rek laa ko am ca fan yooyu moo tax ma ne lu ñaan yàlla yàlla def kon yàlla nga gudd ci dara yi suñu Tuubaa ok jërëjëf jërë ma ci wax ñëpp wax lañ ma xanaa kay <clears throat> bëgg rek <clears throat> damuy taxaw ko tafa dami léegi ngumaan jonn daa taxawut ngumaan jonn <clears throat> ngumaan jonn mooy taaw kër gi daa bëgg ñu taxawaat nañ taxaw woon gumaan joon bokk ci yaasin yaasin ñëwaat taxaw ñu fat ñu fatañu loolu laa bëgg <coughs> ah gumaan soxna yaasin ni ñëw gumaan joon gumaan joon waaw <laughs> ana nga baal ah, waaw man daal ana waa ana waa lambaay yi ate soxna ñëwal yi laa bëggoon rek ah. waaw <laughs> baax na baax na gën solo ni lu sëñ moo ci sonn moo koy jox sëñ bu kër mu sëñ Fall lu sol rek sëñ moo ne ma Habib ma ne ko Mbàkke mu ne sëñ moo ci ba keroog may fekki sëñ Touba fas yéene naa lu mu sol mag koy jox lem naa mbubb ba taay jox ko ak ay dàll ak kaala waaw ah waaw mhm. dëgg la dëgg la li ma si bëgg leeral mooy li tax sëñ bi doon def loolu illa bi mooy sëñ bi dafa fonk alxuraan Sëñ Abdou Karim ba pare man ko ci li nga doon wax léegi Sëñ Abdou Karim li cool di bari bari fi mu toll juróomi la def seen la def Bàmba bind kaamil juróomi pour pour pour seere li ngay wax ni ñoom ku jàngee si ñoom seen daara dafa am barke. Sëñ Abdou Karim bi muy nekk Dakar ku ne xam na ne fu xat la dëkkoon mësumaa gis mu fanaan ak nit ci benn apartement lu dul sëñ Maxtaar si. moom dong laa mës a gis mu ñëw sëñ bi ni ko yow de li kër gi xat-xat naa la jox foo nekk ñu bokk fanaan boobu ba keroog nga fiy jógee mel na moom laa ma a gis mu def kon nag sëñ Modou soo fi soo fi tee waaw dama koy dama koy nag sëñ Modou soo fi teewee ma demee ni ma demee ak sëñ bi. te ñu ko xam-xam ko il faut ma seere loolu di la seeral tamit ni la Sëñ Laat mi yàlla moo dogal soxna Mbasu Njaay mais nga xam ne mooy géwlu Sëñ du Karim Mbàkke wala bokk na ci ay géwalam moo booleeg moom nee naa ko nag boole gi ñu boole zaahir bi moom la waaye baatin bi mooy sopp gi ma sopp sa waajur te Sëñ Abdou boole maak moom te naa ko nag bis ni à partir de cette année bokk naa bokk naa ci bis bi te moom dina xam ni bokk naa ci bis ndax man ci dëkk bi laa dëkk te am murid laa te tamit man tamit yàlla dimbali na ma ci alxuraan ba sama mbir yëpp alxuraan kon nag sëñ Blaat ak sëñ Xaarim Gueye baax mii nee na xam ni yéen seen bis moom bis bisi gi set à partir de cette année bokk naa ci naa ko ànd ak yéen ci saay allahumma ya rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam sallu wa sallim wa ala sayyidina muhammad wa ala sahbihi wa an turux lana barkat ismika alhaadi ili jami ala sirata mustaqim sax yéen ko lana bi la saqim laqita bi ya xarib ya mujib ya man bi la samani xayru ajib habli wali lasina qad tahalaqu bi yahudan bi xayra wa talqu iyyaka nahbudu wa nastahin fi lkal mahbud wal muhin dalatana bika alayka ya raqib ya man bi yanhu lakul naqib ya tasirata almustaqim hab lana hudan bihi rabbana atina fi dunya